Soleil yéene kaay ne agricole day waaw ministre bi la ñu denk wàllu mbéy mi di Mabouba Diagne ah daal dinay toj te faram fàccee tamit day le terrain ah, ah. dama ne ministre bi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu mbéy mi day ah nee na bëgg-bëgg gouvernement bi la seen objectif mooy daal di créer ay coopérative agricole ci lu tolloog juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ci commune yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal gi yëpp ñëpp jaañ naar yemu ca ndaxte que yéen ngeen ne Sénégal day ngir importer ay ay produits alimentaires waaw loo tolloog junni ci ay milliards yu toftal juróom-ñaar fukk laa lay wax ni la eh, lay dépensé allahu akbar la ilaha illallah te ren ji la day jàppale ne gis nga wàllu mbayu gerte gi la eh, waaw Sénégal dana ci góob loo xamante ni nii mësta am bi amee ba léegi ni la eh. danañu battre record laa la wax waaw waaw ma buba jaa ñeemu ca ndaxte nee na dootul yàggati dara dana génnee benn arrêté boo xam ne day lépp loo xam ne xeetoo naag exportation gerte gi la bay rek buub yóbbu ca ay moome ak suuf si ba léegi ni lée waaw enquête yéene kaay ne day am na ca domaine agricole bu Sangalkam la ilaha illallah dama ne la ab crime foncier sur les terres de l'ISRA ISRA men maa la wax lu xew yéene kaay gi ne lu tolloog juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay hectares cinq cent dix-neuf hectares yoo xam ni kon dañ ko fees dépecé dañoo fees suuf sa comme ni ñuy feesee xadu tabaski laa la wax la sans autorisation laa la wax te nag lu tolloog ñeent fukk ak juróom ci ay hectares yoo xam ne dañuy may quarante cinq hectares mystérieusement disparu la ilaha illallah ay agent u impôt domaine ñoo caxa-caxatee suuf sa ay magistrat ñoo caxa-caxatee suuf sa ay autorité religieuse ay kilifa diine ñoo caxa-caxatee suuf sa laa la <laughs> wax waaw waaw ak benn dignitaire lébu boo xam ne punkal la ak ñeneen ak ñeneen laa la wax yéen kaa gi ne dama ne la locaux direction générale ISRAGO gay dañu koo cambriolé kayit ya lañ bëgg a sàcc daw de dama ne la gis nga dossier bi de mi ngi ci loxol kilifa yi <laughs> waxtaane gis nga wàllu bay moomee mbirum gerte gi waaw la ñuy ñaan daal fi mu nekk ni lée nu ñuy nooyu waatee gerte gi mbir mi mitti na genn xeetu mitti koo xam ne day kañ la ñuy génn ci jafe-jafe bi lée en tout cas Sonacos bu Kaolack waaw mbóot ya fa yàlla ji defoon day waaye léegi dee ci sukuraat la ne mar day taali waaw waaw waaye gis nga nag wàllum financement bi nga xam ne moo jóge ci wàllum privé ñii di stocké ni lée waaw ku jégu tar gi nga xam ne nag moom moo am léegi ci exportateur étranger yi jënd gerte gi yóbbu ca bitim réew doy na waar yi nga xam ne tamit maanaam moo nekk sa Ziguinchor gële doy na waar Sidi Ba di porte parole CNCR waaw nee na daal gis nga biñ ne ku mën a nodd noddal ci gerte gi lée dikk leen di koy libéraliser ca la mbir mu yàqu mit waaye kilifa yi day fi mu nekk nii taxaw di ngir relancer kon wàllu mbéy moomee dëgg la lévey yéene kaa ne médecine vétérinaire waaw ñi nga xam ne nag ñoo koy def te ànd ñoo nguur gi lée nguur gi yónniwu leen waaw danañ jug ci ñoom de nguur gi day moom Sonko bi la moom premier ministre président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw seen ministre yi ñu dénk lépp la jëm ci wàllum koom Cheikh Diba ministre des finances et du budget docteur Abdourahmane Sarr ministre de l'économie et de la coopération Serigne Gueye Diop ministre de l'industrie et du commerce ba ci Ahmadou Al Amin Lo secrétaire général gouvernement bi lée tekki nañ seeni valise de ca diwaanu Amérique bitim réew maa la ko wax ngir seet doog nasaraan yooye vision 2050 ca jamono jooje yéen a kaay gi nee na Jean Baptiste Tine ministre intérieur waaw daal dinay tere nag fii ba fukki fan ak juróom-ñaar ci wérug décembre yor ay ngànnaay moom bala fetal ak ñoomit seen day jeex ci mim réew mi li war a jeex ci biir réew mi kay waa gëm sa bopp ci évidence yéene waaw mooy jaay doole bi ñu wax ne moom la def kon kii di seen leader di Bougane Gueye Dany en tout cas ña ngay alerté société civile bi ak organisation wu défense des droits humains Massamba Fall Pastef wax naa Nimza Guédiawaye ci yéene gi waaw nee na gis nga élection député yi lée man dey Massamba Fall mi ré maa ngi waaw gaaña yóbbu nañ ko ca bitim réew de aha daral yéene kaay ne jar na ko xanaa xamoon leen ni Bougane Gueye Dany ca ko dugal noonee waaw mook lu tolloo ñeen fukk ak juróom-ñett laa ni ci doomu aadama ñoo bokk benn néeg arbitali waaw waaw demoon ni la na gis nga nag lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu droit des femmes et des enfants ministre de la justice bi di Ousmane Diagne da koo def ko farata de Dakar Times ne farata gi kay mooy système bi fi nekk ni sa kaddu day nee nañ bugaan dañ koo war a bàyyi léeg fa yéene kaay ak waa sàmm sa kaddu kay ah toj nañ fi Barthélemy Dias nee na teg loxo bi ñu teg loxo bugaan ngay dani mi lée wàllum prise d'otage la ngir néewal doole kon seen coalition bi di sàmm sa kaddu te nguur gi pareegul ci sàmm sa kaddu de ah maa la wax waa sàmm sa kaddu yooye poy ak nee na mbaa du ñàkk Déthié Fall noo Déthié kay waa sàmm sa kaddu dañ koo piège ah, le républicain yéene kaay ne Bougane Gueye Dany mi lée ñeneen ñi ñaan ñu libéré seen mbokk mi kay mooy ñooñu Lat Diop L'Observateur ne gis nga pool judiciaire financier bi lée Lat Diop day fi mu nekk ni sonn na di dama ne la ki nekkoon ministre des sports nekkoon directeur LONASE di Lat Diop mesures yi nga xam ni kon dañ koo jël ci kawam day miti na lool la ay kontam dañ koo bloqué ñu ne déet ni waay oto mi nangu nañ ko te résidence principale kër gam dëkk gars dañu koy nangu allahu akbar ah maa dëkkati jël waaw dañ ne nañ leen ko yaatal kon ci alalu Lat Diop yëpp mu waay l'observateur ya mu ca nee na Sonko Ba mi lée waa sénéra gi day nee nañ seen face à face boobee d'accord uñ ci waa sénéra d'accord uñ ci lée en relief yéene kaa ne en tout cas Barthélémy Dias waaw nee na Ousmane Sonko na ñëw débat ak moom ka débat ci direct news kay mooy Abdou Khadre Sall président du mouvement askanug Sénégal gi day waaw songu nañu nguur gi terminé yéene kaa ne waa gëm tout cas ña ngay mobiliser société société civile ba ak communauté internationale ngir Bougane Gueye Dany mi lee eh, ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi wax box boobu li ne Amadou day d'accord na parce que Zahra Iyane Thiam bokk ca Amadou Ba waaw nee na boo leen demee leen Ousmane Sonko ne ko fu ko ko bëggee ak kañ la ko waaye am leese ko yéene kaa ne waa APR day waaw lii nguur gi di wax ne moom la ñuy waajal ca Casamance nee nañ d'accorduñ ca tey te d'accorduñ ca ëllëg ay Casamance ku moom boppam ak yooyee Walf Fadjri ne débat télévisé entre tête de liste yi waaw Barthélémy Dias day ma ngay joggati Ousmane Sonko Le Quotidien yéene kaa ne Sonko mi ne ko kaa ñu débat Amadou Ba day nee na ko d'accord na dama lay bàyyi nag nga tànn kon dat wa ak fan lañ koy defee la defes yéene kaa ne Touba day waaw jamono ji tedd ji Serigne Mountakha xalif général dana tabax lu tolloog ñaari téeméer ci ay dëkkuwaay ngir ña nga xam ni kon ñoo loru le te ndox moomee réew wàllum xëy emploi fii ci Sénégal gi lée am ko fi doom bu góor la de mitti na de li mitti kay yoor yoor yéen kaay nee na gis nga atelier de prévalidation wu dosob as 29 gi waaw Prodac lu tolloog juróom-ñeent ci ay domaine financé seul deux ñooy dox juróom-ñeent yoo xam ne financé nañ ko laa la wax ñaara cay dox ay milliards yu ne may réer mambay ñaa ne may réer li doy waar kay la foo yéene kaay nee na kurus Thiès directeur bi di Jean Birane Gningue la mu fa nimi ko daal doy na waar doy na waar ne constaté nañ ne ay fonctionnaire de l'État yoo xam ne dañ fa amoon ay contrat à durée indéterminée ci biir université bi maa la ko wax te fa ay dossiers yoo xam ne ay maire lañ ay monsieur le maire ak ay madame les maires yoo xam ne ñoom it dañoo am ay CDI ci biir Crusco gay la ilaha illallah moo taxit université ba lu tolloog juróom-benn milliard ci ay bor la am laa la wax la ilaha illallah libération yéene kaa ne universitaire social bu Sine Saalum gële waaw DG bi nga xam ne moom moo fa nekkoon day noo kooku jël na kubbi waay ci lu jëm nag ci wàllum recrutement ndax lu tolloog junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay agent la recruté allahu akbar teew université ba matuñu junni 992 étudiants hébergés waa ji recruté lu tolloog 1914 agents laa ilaha illallah waa ji recruté lu tolloog juróom-benn fukk ci ay chauffeur 60 chauffeur da ñetti oto doo nga fa am mu waay 206 agents de sécurité teew fanweeri site rek lañ fa war a milliards waaye lii doyul waar li doy kay yéen a kaay Cheikh Mbacke gis a gi nee na mooy ñaareelu passage u docteur Cheikh Dieng te section de recherche démb waaw moom mi nekkoon directeur général u ONAS day jàkkaarloo naag daaf ba ak responsable projet an fan ba susaane waaye yow lan moo tax ba Marseille moom ca ONAS googee Cheikh Dieng day fa la bëgg a yóbbu gendarme de mais daa mel yi feneen lañ a génn la Dakar waaye yéen a kaay day fi na waar ñi nga xam ne ay lycée lañ gone yi jàng lycée ca jamel gale ca biir ndox ma la ñuy kër jéegi ngir mën a yàngi allahu akbar waa takku wàllu Sénégal day lancé nañ opération ba de nee nañ tout sauf Sonko Dakar Presse de sàmm sa kàddu kay Amadou gat sa gat sax ay ñu ne xeex ak ñoom yombul de le témoin yéene kaa ne législative yi day Pastef taxaw kan mooy doon xalif général bi ci Ndakaaru Ndiaye Ndiaye Diop gi lée te Amadou Ba ngi ci suuf di lang di dem naa ca football ba Rewmi Sport kan moo war a wutu Aliou Cissé mi lée réunion ba day décisif bu fédération Madrid day remontada bi mu def doy na waar deux zéro ba quatre deux ndaw bit yu bëri <laughs> waaye bit yi de ak lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bu leen fàtte ne suul gaz du ko tere xeeñ daw yi taxulaa ci ndax Sonko jomaay te jomaay muy Sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal Sonko boo paree ma ne